Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Charo Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Oui, mën nañ ci de bu baax sax ndax ñaari poste de santé yëpp dafa dend maternité chaque année le maire monsieur le maire Babacar Sen, daf leen di en médicaments d'une valeur de plus de 4 millions chaque année la da koy def ñu koy ñaan nag sax mu gën a pérenne waaye ñu ko ci sant ci ba pare ñaari poste de santé yi nga xam dañ den ak maternité yëpp maternité yi yu moderne la ko def ba pare defaale ci ay logement sage-femme dëgg la xalaat na ko bu baax a baax a baax te mu ngi ci parce que maa ngi koy wax expliquer sànq ci salle bi poste de santé Rochette bi poste de santé rek la woon ñu ñaan ko ne ko nu ñu defal benn case boo xam ne c'était pour les enfants malnutris parce que comme Ève daf doon intervenir fii suñu commune nga xam ne bu ñu ñëwee toppatoo xale di leen lekk jox ñuy lekk di leen pesage bi di toppatoo seen wér yaram daal

moom dafa gaaw a comprendre ni ko loolu comme ay domaine transféré la te ci maire yi ñoo ko war a yor wax dëgg yàlla mu ciy def coordonné am pour réussite lool yëpp mu réussit et pour commune bi dootuñu dem di jéggaani feneen lu ñu bëgg rek dañ ko am si sunu biir commune. waa ndax wér jërëjëf wér gu yaram gi moom wax dëgg yàlla soo xewul fii ci commune Thiaroye Gare yàlla dogal na sax maa ngi dend ak bàjjenu gox Ndeye Yacine Fall nga xam ne mooy bàjjenu département Pikine moom tam mu ciy liggéey liggéey bu am solo par le biais de di leen jàppale bu baax a baax baax. vraiment wér yaram moom da ciy def lu mu mën mu ngi ko ciy def wér yaram moom foo ko natt rek ci commune bi passé na fi maa ngi lay wax ne même poste de santé bi nga xam ne mooy Caaroy Gaar man ñu dend ak moom ni ci mairie bi defaat na ko beneen maternité boo xam ne dafa moderne tamit nga xam ne des na tuuti rek moo des pour ñu euh, nuñ koy waxatee inauguré ko yàggatul pare na pare na finition yi desoon pare nañ yàggatul dinañ ko inauguré bu soobee yaa incha allah ñu ngi koy dañ koy ñaanal yàlla rek nga xamne li mu def ren ay déwéni déwén mo diko def parce que chaque année da koy def yalla nako gëna gën a mën yal na fi yàlla bay ba mu koy gëna a mën waaw ndax mom wax deug yàlla kàttanam mom mu ngi ko ci def lépp dal mu ngi ko ci def mom monsieur le maire Babacar sen cartographie bi moom macha allah mu ngi dox à merveille suma yeboni do ni neen 100 mais wax deug yàlla mu ngi dox à merveille parce que amna sémi bu fi nek sax mutuelle de santé bu nga xamne mu ngi fi invité woon naa sax le président dafa xawa tawat xamna naa tax ñëwul maire bi enrôlé na lu mat près de 4 millions yu nga xamne da koo def ci nga xamné ne c'est euh, couche vulnérable def na ci alalam def na ci xaalis bu bari bu nga xamné ne dañu rek képp ku nga xamné ne couche vulnérable na nga ñëw dugg ñu la dara moom mo jël yépp en charge xam nga lool tamit sante yalla la ba avancement la aussi ci santé bi ñoo ko ciy ñaanal bu baax te mu gën ko man rek li ma waxoon léegi mu péré ngir gëna mëna mën jot ay vidéo xibaar abonnel ci chaîne YouTube bu Caaroy Info TV nga daal di bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën a jot yooyu les notification